Pour plus de vidéos replay, abonnez sur la cloche pour avoir des notifications. Le premier à souhaiter un joyeux anniversaire à notre DG, bien sûr, euh, Monsieur Très rapidement, les 14 régions du Sénégal, vous êtes en train de nous suivre. L'Afrique, le monde entier aussi. 8-8 là.

jigéen jigéen ak jigéen man nee naa góor ay ca ñu dem ñu dem ñu dem alors direct via le la page Facebook ñu ngi seetaan actuellement di souhaiter joyeux anniversaire happy birthday gars ñu ngi souhaiter suñu DG bien sûr. Euh, c'est gentil c'est mimi happy birthday ah Birane ok waa Instagram allez continuez à nous envoyer vos textos. mais Zeyna Thiam moom dafa jàpp sax direct bi gis naa message. waaw gis c'est super allez rapidement euh, vieux euh, pour ñu xool suñu serveur ndax tey euh, ça donne cinq assure 5 sur 5. Mm. on va voir très rapidement. la jeune fille la plus gentille ou bien le jeune monsieur le plus gentil qui va nous dire PNJ mes meilleurs vœux en direct ngeen ñu ko message appel et si suñu portable si portable ji 244 22 22. mais en direct laa bëgg xool j'ai attention à 5 on y va 1 2 3 4. allo oui bonsoir allo alo une fois. Allô deux fois. Allô deux fois. Allô. trois fois. Allô. quatre fois. Attention benn moo des de. Yéen su ma benn bi après ñu tëbal ko ñu xool keneen. Allô cinq fois. On prend une autre. Mais on n'entend pas. Allô? On n'a pas de retour là, non. Allô? tijji ko ok ay ca retour bi rapidement oui attention mu taal retour bi comme ça ñu koy mën a dégg allo oui bonsoir ok donc on avait un problème de retour raison pour laquelle moom lu muy wax euh, mais je pense que c'est bon maintenant

PNG laa waxal nii waxal noo tudd. maa neen di seetaan nii bukki bi xamal ma la Amadou Amadou laa Amadou Sall. waaw waaw Amadou ñoo ngi lay déglu waaw. yaa may dégg fii laa waxal wala ji. waaw waaw yow kan nga siy ah, waxal Amadou kan. Amadou Tall. Amadou Tall. waaw. fan nga dëkk Amadou. yaa may dégg fii. waaw maa lay dégg Amadou. yeah man la Amadou. waaw ok Amadou ñoo ngi lay. waaw yow ji noppil rek xam nañu lépp Amadou Tall laa tudd. waaw Amadou. man Yoff laa dëkk Yoff. yee Moustapha. mais bukki bi laa bëgg a si bukki bi. waaw ayca ñu ngi lay déglu si bukki bi Amadou. bukki xam nga lan lay waaw. bukki ndawal lay lekk booy tii. mu ne bukki. ndawal lay lekk bukki laa waaw. ndawal ndawal ndawal waaw ndawal lay lekk ah, lan la woy foofu Youssou Ndour lan la woy foofu bukki yi bukki yi waaw nag wax ko Youssou Ndour dégg nga ok <laughs> léegi yow si bukki yi nga ah, si bukki nga bokk wala bokkoo si bukki yi yow non Youssou Ndour xamal lu mu a wax waaw mooy maam bukki yi waaw buñ la bëggee lekk nga fax waxoon na la dawal dawal daw waaw ok kon lu yu loolu. man du ma bukki de boy yow est doo bukki sax yow. <laughs> mais Amadou kontaan si appel bi frère. waaw mais kontaan naa si yéen tamit affaire yi yàlla na gën a yóbbu si jàmm ak salaam. jaajëf bonne toi mon frère. oui bonne année à vous aussi. jaajëf allez te plaît ban quartier la. Yoff Yoff. Yoff c'est tout près ah. Aïcha Aïcha donc mention spéciale à. allez faites euh, ñu jël ko allo bonsoir. voilà au 88 128 22 22. les numéros magiques vieux may ñu ko xool. oui bonsoir. bonsoir. mademoiselle ou madame. mademoiselle. elle se nomme Aïda. Oh là là, Aïda, vous avez une voix radiophonique, quoi. Aïda. Merci vous nous appelez voix téléphonique. <laughs> De Thiès. Donc, y a des branchés à Thiès. Oui. Est-ce que pare ngeen soirée bi dañ leen may soirée en direct seen biir kër. ngeen pare pour ñu def show est-ce que. incha allah. Hmm. Youssou Ndour bi dal la ah bukki bi la. est-ce que yow léeg-léeg amul ay bukki yuy roode sa ay bukki bukki. non non. yu lay wër noonu quoi bukki yu lay wër. <laughs> mais mais Aïda est-ce que bukki bu jigéen am na. si bari na de. bukki bu ah jigéen am na pour yow bukki bu góor rek am. non bu jigéen bari na. bu jigéen am ak moo fi bëri bukki jigéen yi nga bokk wala bokkoo si. non bokkuma si moom. ah bokkoo mais tu as aimé le clip j'espère. oui dal na la ah. bu baax. et tu souhaites meilleurs vœux à qui euh, tu souhaites meilleurs vœux à à mes, bon, mes copines. oui. oui ak tout léegi ban clip moo lay moo la nar a daaneel juste après le son de Youssou Ndour neuf mois si des ban clip nga bëgg ji may la. si top 10 bi Aïda Samb. Aïda Samb ñu boole ko si top 10 bi. oh là là elle est partie J elle a demandé Samb donc. vieux vieux dem na boole leen ko si playlist bi ah. mention spéciale léegi fii xam laa bëgg est-ce que comme bukki bi nii son bi nii xam nañu def. ah léegi damay xool ku dàqale snap ku dàqale snap snap son bi la ñuy teg léegi gars yi si snap kom que dañuy ne soirée léegi ku si nekk ma jël benn jàpp ku si nekk day snap son bi léegi mu yónnee ñu ko si tàng tàng bi dañ koy teg si télé bi si tàng tàng bi xaar ma jël <laughs> si tàng tàng bi allo bonsoir aca allo bonsoir bonsoir bonsoir mademoiselle ou madame non c'est mademoiselle elle se nomme comment Khadija Khadija j'ai à toi ah déjà yaa ngi may yaa mademoiselle yi de mu demee noonu. man madame yi laay xaar. Hmm. xanaa Eva dala ne eh pii bul mademoiselle yi de. sa waay ma moom <laughs> laaj ko fu mu dëkk. allo. allo. oui ça va Khadija. ça va bien merci. t'habites où Khadija. Oh from Sacré-Cœur. ok tu vas bien. Ça va bien, alhamdoulilah. tu es à l'école ou bien tu es en vacances ou bien tu étudies? Qu'est-ce que tu fais, Khadija? Ben, j'étudie. Ah, OK. Et ça se passe bien? Comment tu as trouvé le clip de Youssou Ndour? Tu as aimé? Oui, on adore. Est-ce que am nga benn xarit bukki boo mun a may dédicace clip. tagal sa benn xarit bukki ñu xool. tànnal ku la neex. Ah, est-ce que man am na bukki. ah est-ce que yow sax doo bukki yow bukki bu jigéen Khadija. Moustapha. Ah. <laughs> en tout cas ça fait plaisir est-ce que tu parviens à reconnaître les jumeaux. xamee nga twins est-ce que. Euh, c'est la première fois que tu suis les PNJ toi. Hmm, non. live dañu Instagram ah, ok tu sur Instagram alors. Ok, super. Alors, quel est le clip qui te fera plaisir tout à l'heure pour notre top 10 Mytho des stars, Mu ne. le mytho des stars. Ah, j'ai du mal à bien entendre là. Mytho des stars. Mytho d'Asta, Asta. Oui. Ah, mytho. Elle a une manière de prononcer mytho d'Asta. Ah, naturellement, tu parles comme ça, hein? Eh, bien sûr. Da ngay yëy si nga wala da ngay wesh wesh, tu sais ce que c'est-à-dire. Mytho. Non, j'ai une <laughs> Et tu l'offres à qui le clip Tu l'offres à qui Comment euh, Le clip, tu l'offres à qui Tu as des amis, des frères, des sœurs que tu vas offrir le clip Oui, je vais l'offrir euh, à ma meilleure amie Fatou Salazar. Ok. Oui, à Fatou. Et à vous aussi. c'est très gentil. Donc après, on va mettre euh, le son. Parce que j'ai envie de voir vos snaps avec le son de Youssou Ndour Bouké. mettre le son et puis après tout le monde en position Snapchat. Et après vous allez envoyer ça. Vous suivre sur le ni Instagram. Yeah. Yeah. Xaar ma woon am Instagram dañu Facebook. bravo Khadija. lii yaa am fii. léegi pi Instagram PNG l'officiel. ok merci à vous. allez gros bisous à toi. à vous aussi bonne fin de Peace remain the holder. Okay, gentle boy. Let's go. <laughs> Let's go. bu ko fa dewee noonu. bu ko fa dewee noonu. léegi bee ngi nii ah. ngeen envoyé message rek euh, c'est le 77 244 22 22 soo leen defee snap bi ba pare feen koy si tàng tàng bi dama koy jox vieux. Mais attends, avant, avant, avant de, de lancer le clip, j'aimerais d'abord féliciter Mhm. Amadou Tal, Aïda depuis Thiès et Khadija depuis Sacré-Cœur. Yeah. Aujourd'hui, il n'y a pas Teranga euh, Sénégal, mais n'empêche, ils ont pris leur téléphone, ils ont appelé. Mm -hmm. Ça se voit que c'est pas par intérêt qu'ils appellent, mais c'est par amour. C'est beau. C'est parce qu'ils aiment l'émission, c'est parce qu'ils ont envie l'émission. C'est pas parce que dañ leen wax ne kaa leen ma may leen xaalis ngeen wooñu. Non non. Yéen xaaroo leen xaalis pour woote.

Thank you.

cut, cut. Voilà. Merci beaucoup DJ. Merci beaucoup DJ. Est-ce que Alors, cool. dire que soirée PNJ day am mbalax pour ñi nga foog ne ñi nga xamante ne dañu foog ne soirée PNJ 100 euh, pour 100 discothèque la show rek lay am mais mbalax def si bokk dañuy tànn souvent cinq mbalax yu saf dugal ko si biir. Ah te yii da siy bokk. n'est-ce pas. c'est clair donc euh, ji dama bëgg li nga xamante ne sram nañ ko léegi. waaw ah képp ki nga xamante ne snap nga son Youssou Ndour bi yónnee ko sama jumeau si 77 244 22 22 balaa émission bi di jeex dañ koy dugal en direct yónneel vie suñu bos yonne ko suñu bos léegi. vie ah. Aïcha on dit bonsoir s'il y a quelqu'un allô. allô oui. bonsoir monsieur. bonsoir comment vous allez. ça va très bien. ça va on est fiers de la soirée. c'est comment le nom. c'est Devly depuis le soir. Sergi. C'est comment vous dites? C'est Dave. Dave. Dave from Ouest Foire. David. Euh... Dave, tu vas bien? Ah oui, je vais hyper bien. Alors, euh, mes meilleurs vœux à toi, David. Merci à vous. Et ça se passe comment la soirée avec PNJ en direct? Ouais, ouais, ouais, tranquille même. <laughs> Ok. Et tu es avec la famille, tu es avec madame, tu es avec papa ou maman? Monsieur avec la copine. Oh là là, c'est lui, c'est lui, c'est lui, à <laughs> bon voilà, mais bon par contre après j'aimerais j'aimerais bien euh, euh, le son de euh, Tambo Pesi Olela. Oh pardon? Tambo Pesi Olela. Donc c'est un Samba Pesi qui te fera plaisir toi. Voilà. Alors ton bébé d'amour qui est à côté. Euh, voilà. s'appelle comment Mina. Pardon Mina, c'est Mina. J Binet. Nina. Nina Oui. Ok, donc tu l'offres à Nina Ouais, alors vous allez danser ça et vous allez nous envoyer un snap euh, via le portable de mon jumeau, tu es d'accord Il n'y a pas de souci, je prends les numéros et je vous envoie ça tout de suite. Ok, et comment tu trouves l'émission Tu aimes Super, ça fait plaisir. Merci pour l'appel, ça nous fait plaisir. Merci à vous et bonne soirée. Allez, Merci. ça, ça c'est pour toi et ton bébé d'amour. Merci. Merci. Là, là, là. ok au plaisir de Dev et de son amour. ça se passe comme ça da ngeen di woote en live and direct day naa leen discothèque euh, chez vous house party. voilà ñu vrëch leen son yi. ni lay demee avec The Twins DJ PNG di leen koy vrëch si tàng tàng bi alors Dev et Nina après avoir euh, bien sûr euh, faire votre euh, très jolie vidéo. vous nous l'envoyez au 77 244 22 22. Voilà, il suffit si d'envoyer des textos. Vidéo, envoyez cela bien sûr via appeler, le 77 faut pas appeler hein. 244 envoyez juste des textos. 22 je vais 22 tous les textos. D'accord. Vieux. am na lu ma la yónnee yow tamit ah da ngay suivre de vieux xoolal sa whatsapp am na lu ma la yónnee si tàng tàng bi lu ma la yónnee dama koy may. nee na kaana la jël na ko bu yàgg. jël na ko ah. ayca léegi vieux mais yónnee ma si même si benn wala ñaar rek si lu ma la yónnee ma xool. ok merci à Oussou GFM euh, je suis au boulot mais n'empêche je vous suis euh, Bac euh, mention spéciale maa ngi lay béggee bu baax. mais baal mu gars ñoo ngi koy am ah, en direct nii. yaa mu nice ah mu nice. Eh, Bathie maa ngi xaar sa. vidéo ayca <laughs> mais ji kon lii du ay caaxaan ah. du ay faux kon da ngay def sa snap yónnee ko sama jumeau si 77 244 22 22 émission bi. une heure trente lay jeex kon dese na leen trente minutes ah pour ngeen yónnee seen vidéo Aïcha vieux. non vieux vieux am na bu ñu yónnee bi moom su ma la ko yónnee woon xam naa moom <laughs> mais kii dafa sadik. waa du jàmm rek non kii nu ñuy séddaane dafa garaaw mais. Ah, ma xool ma xool ma xool may ma ko vieux xaar ma xool ba pare. ñu dem vaar ba pare vieux ñu dem vaar ba pare. mais caayal caayal Aïcha ñu dem vaar. la. <laughs> non vieux xam nga yónnee la ko. vieux jox ma téléphone alo bonsoir. non gars yi nañu seetaan PNJ garaaw na. oui. allo bonsoir. allo. essaye essaye de nous écouter directement et puis éteins ou bien diminue la télé te plaît. vous êtes toujours là. allo. oui soxna si naka nga def. maa ngi nii Euh, tur bi naka la ak fan nga ñuy wooyee. Yacine ma fexe ma jot. kan nga buggoon Yacine. xaalis daal laa bëggoon may ma ko ba tey maa ngi xaalis tey dama ne woon Pape Cissé euh, mu mu bàyyi ba demain matin yeewu leen mu yónnee foofu xaalis mais tey émission PNJ amul xaalis. dangay bëgg émission bi nga woote. émission bi bëggoo ko nga xaar tasaare la du émission xaalis. d'accord mais demee yeewu leen Pape Cheikh am na. et puis après Pape Cheikh Amina Poté am na aussi donc c'est ça mais pour aujourd'hui l'émission de PNJ dama ñaan Pape Cissé ne ko Pape Cissé dama bëgg nga jël xaalis bi yëpp dencal ko waaye yeewu leen mais émission kaana bi tey dama bëgg këpp kuy kaana nga woote parce que nga parce tu as envie d'appeler pas par pas parce que j'ai besoin d'argent mais parce que j'aime l'émission j'aime ces jours est que mon ngi cool c'est par amour que j'appelle mais pas par money man ok aca ceux qui ont envie d'appeler par amour appeler au 88 628 22 parce que damay toog di xalaat ma ne ji bés bu ñu xaalis ne gars yi xaalis a ngi nii woote leen kon boobaa nan la ñuy def. yeah man. qu'est-ce qu'on va faire. tu m'appelles parce qu'il y a de l'argent et quand j'ai pas d'argent qu'est-ce que tu vas faire. tu vas plus m'appeler parce qu'il y a pas d'argent. j'ai pas appelé parce a pas d'argent. jobewuñ noonu. voilà jobewuñ noonu. jobewuñ noonu man. ayca c'est le pire. Emma de passage gros bisous à toi ça fait plaisir. la plus belle. mais mun naa nag mercredi prochain ñu ñëw indaale teranga. ayca taranga la yaa ngi su ma lay yónnee gaa ngi may gaa ngi toj sama portable actuellement ni ak ah, vidéo yi ñoo ngi koy am moo ngi nice moo ngi cool ah. moo ji les vidéos. Après le Samba Peuzzi, après Youssou Ndour et y a une diva sous le nom de Aïda qui a demandé le son de Aïda Samb. May ko son Aïda Samb rek rapidement. Aïda Samb OK. Aïda bu Thiès mu ngi xaar Aïda Samb. Aïda bu Thiès ah. snap yónnee la ko. May ko Aïda Samb. waaw di béggee képp kuy douanier monsieur Loum bu Gossas week-end passé ñu ngi woon Gossas bien sûr chez monsieur Loum un ami douanier bien sûr avec le baptême de ce, de de sa fille hein. Aïcha euh, vieux si c'est bon est-ce que je peux regarder un snap de J c'est possible Aïcha ñu dem let's go on va regarder un snap. waaye xaw ma fan la nekk daal mais numéro extérieur la. ok donc waa extérieur sax ñu ngi ñuy jamono ji bu leen fàtte dafay guddi euh, suñu nekkee ñun une heure ñoom ay trois heures du matin mooy jot donc on les comprend ñii seen nekk la nekk di seetaan donc c'est permis nu ngeen munti nekkee position bu ngeen munti mel yónnee leen ñu snap bi tu vois ñu ñu tasaare ko sa c'est c'est c'est waa France de passage am naa fi benn Aïda Samb ak euh, Mito c'est ça non. Euh, bu Asara waaw mais avant Asta bi may ma benn Aïda Samb par son voilà. juste pour euh, participer nii rek. ah mais kontaan nañ kontaan nañ frère. xam xaar si lañ fekk si lañ baax. voilà mais kontaan naa lii laa bëgg man lii laa gëm. dama bëgg ay téléspectateurs yu fidèles ay auditeurs yu fidèles. waaw gis nga. mais naka journée bi ça s'est bien passé émission bi jaajëf jaajëf waay waaw moom confinement bi ci wuñu quoi kon wéetoo leen quoi jamono ji wéetoo leen yow jamono ji lan pare ngeen ñu dem ba 5 heures ah pare ngeen ñu dem ba 5 heures ah waaw yokk leen yokk leen dool leen ca <laughs> mais si Instagram bi nga ñuy seetaanee wala si télé bi non man maa ngi si télé bi nag yaa ngi si télé bi mais lépp a ngi nice lépp a ngi leer waaw lépp a ah. leen koy yónnee nice waaw mais xara bañ a bokk si bukki yi rek moo tax ñu dugg quoi. acca léegi si top ten yi ban son wala ban clip nga bëggoon Jimay la. bon si top wa waaw. Euh, sama choix ou bien da ngeen non c'est à ton choix c'est c'est au feeling. man je veux le taxi taxi love de de Wally Balago. taxi love. Wally Balago moo lay daaneel yow. waaw waaw waaw moom moom. ok moo lay daaneel quoi. may son bi. son mhm. Euh, maa ngi koy way may euh, bon waa Galsen ñëpp ah pour bañ kenn mer. ok sànq am na Dev moom ak bébé Damour am ñoo nekk yow yow kan yéen nekk jamono ji. man nii nii nii. waaw. daa mel ne ñegenaay bi laa gën a jege de. <laughs> kon may yow célibataire nga yow may. waaw avec un grand C. kon yow si yéen a bokk groupe ah. ñoo bokk groupe de. <laughs> mais yéen yërëm naa leen fan yi si seddaay bi de copain. ah mais yàlla baax na allez boo gis naa am retour. <laughs> ok y' a problème mais kontaan nañ frère.

waaw ñëf. merci J. alors j'ai un DJ malade j'ai un réalisateur fou. non émission bi. un DJ malade.

dañuy dem ba deux heures non sawaay non vieux xoolal amul ay tey ñaareel ba ay couvre-feu la ñu nekk gars yi nelawuñ no mais parce que toit aujourd'hui tu n'es pas venu avec ta voiture non booy bàyyil sën yi ngay def yow sama yow dañu war a yóbbaale rek tey xam nga nu ñuy demee tey vieux moo la war a yóbbaale ayca ah. vieux ayca non mais ji xaaral xaaral léegi damay xool damay xool si 30 minutes yi ñuy desee ñan ñoo xamante ne jamono jii ñu ngi ak PNG ba léegi nelawaguñu xool leen seen portable yi ñan ñoo am crédit ñan ñoo amul crédit ñu amul crédit toog leen ngeen seetaan mais ñi am crédit ay 88 628 22 22 ayca ñu xool allo allo bonsoir. bonsoir. oui monsieur. Euh, bonjour participer à l'émission. mais avec plaisir on vous accueille avec plaisir. oh là là. Oh là là, il a longtemps duré, il a longtemps patienté. Alors faites comme ce monsieur qui veut participer à l'émission au 88 628 22 de participer, oui. Donnez-nous votre prénom, votre nom, là et partagez bien sûr l'émission avec vos jumeaux, et notre réalisateur vieux les mythomanes? Mytho? Les mythomanes. Mito. Mito, il y a une charmante demoiselle sur le nom de Asta. Asta la diva. La plus belle, la diva. La Beyoncé du Sénégal. Suñu Beyoncé bi dafa génne benn son bu ah ko Mito. di yekk xale yu góor loo xamante ne. Mhm. pare nga pour ñu déglu. ayca vieux vieux tey laay xool nag ndax damay teg son bi pareel ma clip bi nag tey laa lay sonal tey laay xool ndax aay nga. vieux are ready? let's go. 2-1. Euh, merci beaucoup à la diva. J. Merci beaucoup à la diva Asta. Elle est Où très belle. Elle est jeune. Elle est ravissante. non couvre-feu bi nag tooñ nañu mais sinon konoon chaque mercredi dañ leen indil benn artiste mu tasaare ko. mais am na ay artistes yu bëgg ànd ak seen manager bëgg ànd ak seen maquilleuse. tu vois ñoom ñoom mënul leen indil laisser passer day xaw a métti si ñun te souvent soo leen waxee est-ce que di nga mën a ñëw yow kese non c'est un manager. ayca ah. téléphone sonne on dit bonsoir allo. oh là là elle ou il a Assar mënoon na ñëw moom kese de après naa ko déposé. pardon. jóge naa foofu yàgg na. Il est malade. Il est malade. Il est malade. Right now, right now. Vamos, Gil! Dieu. What am I to do? What am I to do? What am I to do? What am I to do? Je rentre tard, je dis pas, je rentre tard, je dis pas. mo gọ́sàn sósì torí bèbè màdùsì torí mo gọ́sàn sósì. Merci beaucoup, DJ. Hey, DJ, DJ, DJ. Hey, DJ, DJ. Stop the music, please. moom yaramam su tàngee nag moom du déggati kenn. nii la mel day tëx. ayca euh, émission bi si ngeen bokk yéen téléspectateurs yi ji daf leen noonu won boppam rek pour won leen ne am ngeen droit bouger dañ noonu foo rek sa waay da may ma jël benn bien yéen nee na Touba a Maria, les, les jumelles à Eva qui de danser. Et grave, hein. Nathalie, gros bisous à toi. Maria, gros bisous à toi. Est-ce que mu ngi cool foofu mu ngi nice. mu ngi <laughs> nice mu <laughs> ngi parce que ñoom si émission bi lañ bokk. Mhm. Thiès ko dégg nañ euh, Dakar dégg nañ pas mal de régions. balaa ñu leen di yónneewaat si suñu top 10 bi rapidement. colonel Diouf ñu ngi koy béggee bu baax. Euh, xarit bi gis nga waa Mauritanie ah, seen drapeau bi. <laughs> am na benn vidéo bu ma la yónnee. ayca <laughs> vieux boole rapidement balaa may jël kenn. yónnee ma ñaari ñaari vidéo snap. <laughs> via les 244 de nos que les pays sont en train de nous suivre ayca ñu dem let's go. voilà mais avant asta bi may bravo à la Mauritanie la Mauritanie i sont en train de suivre le PNT. Yeah, euh, ça cool, fait plaisir hein. alors nice. tu sais qu'est-ce qu'on va faire. tu vas proposer un autre clip à Vieux. comme ça ñi nga xamante ne amuñu woon temps amuñu woon chance. Wow. ah woote. wala yónnee seen clip. clip bi ñuy may dama bëgg ñu snap ko snap seen bopp yónnee la ko. léegi comme que dañu jógee ci Astar. waaw te ñoo bokk génération Astar. laa fi Jena xam nga Jena. Jena xam naa ko Jena borom baabam. waaw Jena. Jena je connais. tamit génne na mu ngi koy tasaare. yaa Abiba aussi. ah bon léegi vieux. Uh-huh. léegi seetaan nañ Astar bi. mito léegi yóbbu ñu Jena wala Assa euh, wala Abiba. ok léegi si Jena bi wala si Abiba bi dama bëgg yow mi nga xamante ne yaa ñuy seetaan nga jël sa portable snap ko nga yónnee ko si 77 244 22 22 let's go ñu dem. Alors, merci beaucoup encore une fois. Ces jeunes filles bourrées de talent, vous venez de voir Asta, vous venez de dina euh, baax d'âge dépassé vingt cinq ans ñee te mu ngi si million de vues hein, ouais, en ouais. espace d'une semaine la diva Jenna. OK dans l'avenir dans l'avenir ñi ñooy téye Sénégal ay Jenna bien ah, sûr ay Abiba Asta dans l'avenir chez les jeunes filles ñi ñoo nar a téye Sénégal yoon la en tant que animateur ñu ñu yokk leen doole ñu leen support ñu ñu ñu supporter leen donc mention spéciale à ces jeunes filles on est tous une famille c'est le Sénégal Abiba bee ngi ñëw ah koj leen ko léegi léegi Abiba alors j'espère que euh, am na ñi nga xamante ne euh, jot nañ def seen ay vidéo yónnee leen ko rapidement pour ngeen wan ñu ne yéen a ngi seetaan si 77 244 22 22 ji bien mais ji namu naa téléphone bi en direct ah xaaral ma xool gars yi kan moo nekk si ligne bi. waaw en attendant ngay coché man may coché vidéo yi xoolagum vidéo yi fii. ayca gars yi pare ngeen ah kan laay jël 88 la 628 22 les 14 régions du Sénégal sànq dégg naa Thiès mais am na benn région boo xam ne dama am dégg ko dégg gu ma ko ba léegi moom laa bëgg dégg 88 628 22 22 am na benn quartier seetlu nga loolu est-ce que. non d'accord mais instant da nga commencé rek ma commencé mer. xool lii yëpp xool lii yëpp fan laay fan laay tegee lii yëpp lii yëpp lii yëpp si vidéo. mais mercredi prochain am na faatu ah. mercredi prochain am na. ñoom Adama. n'est-ce pas te samedi am na benn copain am na bu ñuy wooyee Dip Doundou gis samedi dafa war a génnee clip bu bees musiba Dip Doundou Guiss samedi koj leen ko bien sûr mercredi dina ñëw ak clip boo xamante ne clip bu bees la boo xamante ne Dip moo koy génne actualité bu am nouveauté bu am jàpp leen ne chaque mercredi di ngeen ko am dans le PND show ji ma bàyyi la nga tàggatoo Ouais, mais ben, on remercie tout ce beau monde. Hein. On a reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos. On n'en peut finir. Oui. On est en direct aussi sur Instagram. Mm. On est en direct sur Facebook. Gars, ñoo ngi woote WhatsApp. Des messages WhatsApp, vidéo ñoo ngi dàkkee. Mm. Franchement, mm-hmm. ça fait boum boum au cœur. Hein. Yeah. Et il de 30 minutes. Ça se voit que y a les mélomanes, y a les branchés, il y a les connaisseurs. Bàcc Mbour, ça mu la doon bégee. Big respect waa Mbour, un peu Gambia Mauritanie tamit waaw Mauritanie ah bisous à vous donc gars pi puis ñoo ngi ñuy fu ne ah Instagram Facebook WhatsApp tu vois drapeau yi ñoo ngi dàqee quoi. yeah super alors très rapidement pour ñi nga xamante ne dañ doon laajte yëre yu naay si soo ko bëggee am naka ngay def univers chic bu aram euh, moom mooy solal solo di solal PNG su ngeen bëggee yu naay si da ngeen koy woo euh, si 7 8. bien sûr 157 25 25 pile yu naay si bien sûr 78 157 25 25 ji gënal nga wane sa dàll yi ma joxe numéro bi ayca ayca rapidement alors su fekkee da ngeen bëgg si dàll yu naay si da ngay def euh, Zal Shop au 78 waaw voilà 78 372. 95 35 moom mooy euh, Zal Shop. alors Babs moom mooy jaar si dàllu pii Alexander la. voilà gis ngeen dàllu pii yaa ngi nii. Alexander la booy laa sol. ok dàllu yu nice da ngeen di def Babs VIP Shop au 78 615 05 79. donc puis xool sama yos. ñoo fi daal bien bien jëlal bi marque bi laa <laughs> merci Ayou coiffure waa ji doy

Pulo Pulo la star ah moom mooy laajte tout le temps <laughs> di ko remercier bien sûr euh, pap euh, Mor di ko remercier moom mooy indi bagage yi neex ya émission yi di remercier Pape Jean de loin moom moo doon coach digital bi merci à toute l'équipe c'était dope vieux moom yow amoo sa fay parce que tey émission bi su jeexee ji indiwul otom vieux ki ñu doon réaliser voilà vieux ki ñu doon réaliser moom moo nar a taal otom yóbbu pii yóbbu ji te am na ñaari soxna yi koy xaar. waaw parce que imaginez vous. c'est mhm. depuis xaw ma week-end ah, donc de passage. Euh, bisou à musiba ngay wax euh, wax musiba. waaw non ma wax nekkoon donc su ma ñibbisee donc oto bi dama koy yóbbu entretenir ko quoi donc tey vie moom nar a déposer quoi. ñoo nar a bokk parce que moom dafa waroon teel si aaw bi lay si ñaareel ok vie c'est une question. kan moo aaye tey ok nee jàppal ne am na fenn fu muy jëm. ma jaaxal vieux saa ko laajee mu ne la si ñaareelu. bàyyi bàyyi ni euh. ah? nii. mais nañ koy diw bëri. mais parce que mercredi lay tombel ñaareel bi ku la ne lundi wala mardi kële mooy aw loolu affaire da aw ñaareel yi amul ay chaque jour mercredi kii moo aye affaire day awalantoo <laughs> chaque jour du maafe chaque jour dama daane <laughs> Aïcha alors encore une fois joyeux anniversaire à bien sûr notre directeur on vous souhaite une longue vie merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis à nos frères musulmans on vous dit bien sûr de passer d'excellentes euh, journées euh, demain à nos frères euh, chrétiens catholiques aussi qui nous suivent on vous dit on est de tout cœur avec vous on est de tout cœur avec le Sénégal avec l'Afrique avec le monde entier que la paix demeure bien sûr un peu partout à travers